journée bi nga dugg see neex na lool dellu si waat nañ ci combat bi alaaji maali ah xoolal waaw alta yooru jàpp saweru dóor koy sërkin ba pare tee ca geño ya ndaysaan amet yooru tee ci ñoom ñaar waaw fi na xëy na xeex bu méttee métti ñoom ñaar nga benn instant amet Moussa Diouf jël na coup ba kawate waaw gis nga coup droit boobu waaw waaw foofu kawate na mais fam ma ngay dégagé wu nag ma ngay dégagé wu sukk na sax sukk na daa dellu si waat nag tee Go Bobby Wingy.